واجعله دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم واجعله دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi baaxoo seetaan seen télévision Al Mouridiyyah ñu ngi am mbégte di leen nuyuwaat di jiital rek ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides ñaanal ko sunu borom mu guddal fanam defal ko wérit ba naal yi nga xam ne soo mën na ko ci liggéey maam bi Cheikhul Khadim mu yeggale ko ak sagoom te lépp nandu ko ak moom lépp it nandu ko ak mboolem njabootu Serigne Touba yëpp kenn bañ a wute ni nga xam ne noonu la baaxoo di ko ko ñaanalee saa su nekk euh, gis ngeen euh, beneen jataay encore ci ñi nga xam ne ñu ngi leen ko doon dig ci biir complexe Cheikh Ahmadoul Khadim gi nga xam ne si la ñu nekk euh, tey ñu waxtu fas yéene waxtaan ak beneen tomb boo xam ne bokkut ak ñi nga xam ne moom la ñu doon jël ndax complexe moo demee noonu dafa bari ay màcc ay pàcc wala ay domaine yoo xam ne benn bu ci nekk njàng mi daf koy ëmb wala daf koy daf koy laal loolu waral tey jii ñu ànd ak Serigne Abdourahmane euh, Serigne Mbacké Abdourahmane euh, moom la ñu dalal tey ànd it ak Serigne bu Bousso euh, su ko defee fas yéene waxtaane benn tomb boo xam ne moom dañ ko ci tànn moom it muy wàllum njàngum majaalis bi parce que moom it ci biir programme bi ci la bokk daañ ci ñëw ci biir waxtaan wi incha allah pour mën a xam rek naka lay tëgge euh, tëddee ak it naka la ñu ko nosee ak it nan naka la ko fas yéene déroulé incha allah ci biir programme mu euh, complexe bi euh, su mbàkke abdourahman salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi nga xam yëpp ñu bàyyi xel bi mm-hmm. ginnaaw bu ñu siyaaree Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaanal koo sàmm koo dëgëral ndokkeel lislaam ci xew-xew màgg bi nga xam ne moo tax ñu daje tey nuyu bu baax sëriñ Masamba mu seqal jataay bi ok jërëjëf bu baax a baax sëriñ Masamba Bousso bi nga xam ne moo tax ñu daje daje bi di ñaanu Cheikh Mamadou Mountakha ci projet bu mag bi nga xam ne moom la sumb yaakaar mu di bay aju ci lool ñaan yàlla subhanahu wa taala mu àggale ko foo xam ne rawee na jot amiin yaa rabbal alamin amin euh, ñu ngi lay santaat yéen bu baax a baax ci teewaay bi su ko defee kon euh, dañuy daal di tënk jataay bi rek ci euh, ay poñ yu néew ndax xataayu waxtu yi waaye yëpp ñu xam ne ñu kilifa yi tamit dañoo fi mu ne nii yanu yan bu diis a diis a diis ndax xam ngeen ubbite gi soreetul juróom-benni fan ci weeru février la ñu ko jàpp incha allah ñu war a nekk ci dernier réglage yi ngir lépp mën a jaar yoon incha allah kon mën nañu koo tàmbalee rek ci Euh, buntu bu jëkk bi si Mbàkke Abdu Rahmaan boo ñu doon melalal euh, luy majaalis sama classe nga xam ne si xay na jàngul wala seenu njàng soriwul euh, lan mooy majaalis. waaw jërëjëf Serigne Modou te am njàngoom xam-xam la moo xam ne. Mm-hmm. bu tasaaroo fi ci lislaam mooma. Mm-hmm. moo fi leeral diine ji. Mm-hmm. sunu mag ñu baax ñi ñam am ridwanullahi alayhim yëpp doon ay kàngam ci diine. ci daara jooju lañ génne. kon am njàng la moo xam ne. laltaayam mooy diine ak làkk wi nga xam ne mooy làkku diine mooy làkku arab ci lañuy sukkandiku di jàngale mbooleem téere xam-xam yi nga xam ne mooy tax nit dégg diine waaye mën ko jëfandikoo muy njàng moo xam ne it njàng mu ànd ko yar la ndax ko jàngale naka jekk dañ la koy jàngal waaye toqi la ci bu ñu jàngale jàngalee jaamu yàlla gi nu mu waaye tàggat la ci ba nga xam noo koy defee mën nañoo wax ne kon mooy njàng mi nga xam daal moo téye lislaam hmm. ndax bi lislaam di ñëw fi moom la fi àndaale hmm. ci lañ jàngal kilifa yu mag yëpp daar yu mag yi fi am yëpp ci njàng moomu lañ lañ lañ laltaayu hmm. kon njàng mu am solo la mu yàgg nag moo xam ne mu yàgg ami jeexit yàgg am ay njariñ ba tey jii ñu mag ñi tudd ci réew mi ci wàllu xam-xamu diine wala xam-xamu làkku arab na nga jàpp ne ci daara jooju lañ génne lu wutale tafsir jàng alxuraan la benn màcc la ci biir njàngu majalis maanaam nit ki buñ ko jàngalee xam-xami charia yi jàngal ko làkk arab ba ci mujj gi nag ki lañ koy jàngal tafsirul xuraanul karim maanaam benn bànqaas la ci wala boog benn matière la ci biir matière yi nga xam ne daara yi majalis am na ko mooy téréb yàlla bi am na fooy àgg ci jekku làkk wi ak xam-xam yi war a àndal foofu nag lan la koy joxe ngir nga xam li yàlla wax lu tolloog liñ ci mën a xam li ci nit mën a xam ci biir la bokk ci <laughs> fan la gone di toll euh, ñu xam ne kii war naa mën a tàmbalee jàng majalis. bu njëkkoon. mag ñi niñ doon doxale ñoom mooy gone gi day jàng alxuraan kay ba mokkal ko bu ko mënee mokkal. Mm-hmm. door a tàmbale jàng nag xam-xam majalis bi. waaye jamono dox nag ginnaaw bi ñu gis ne manis na ko boole. Mm-hmm. léegi daara yu bari tey mm-hmm. gone gi bu jàngee ba sori rek mën na ko tàmbali. wala koo xam ne dem na ci alxuraan ba sori waaye xam nañ ne yàlla dogalut mën ko mokkal. ñaare ñooñu it léeg-léeg ñu génne leen daaray alxuraan yóbbu leen ñu jàngi xam-xam hmm, waaye fi mu ne nii moom àgg nañ ci gis ne mën nañoo bañ a nekk ba gone gi di mokkal alxuraan mën na ko boole mën na ko boole moo tax nga gis daara jii sax hmm. ci biir fa ñuy jàngalee alxuraan fa la ñuy tàmbalee majalis hmm. ndax am na fa ñu tàmbul nga xam ne bu ñu noppee dañuy ñëw àggale si nag ci daara majalis ndax gis nañ ne am na fa nit ki toll dana mën a tàmbali di jël xam yenn bind ci yenn euh, fànn yi waaw waaye li doon cosaan bu njëkkoon dangay ngay jàng alxam ba noppi. door dem dugg nag jàng xam-xam boobu. d'accord waaw ba may jeex rek balaa may ñëw ci Sëriñ Massamba euh, yan yan téere la ñuy la ñuy la ñuy tànn ndax da wax ma léegi téere xam-xam yi. Hmm. ndax su boobaa day doon xasida yi kese wala day am yeneen téere xam-xam yoo xam ne. Hmm. da ngeen ko dem jëli ji ngir gone yi man mën koo. waaw xam nga naka jëkk njàngu majalis ñu la njàngum sharia la xam-xamu sharia ak làkku arab yi ko la. su ko defee téere yi nga xam ne fii bu dee ci daara ji mhm. lu jëm ci wàllu xam-xamu charia la yi mhm. ci sëriñ bi taalif mhm. ci la ñuy tàmbalee ah, yooyu nag yi mu doon digle ñu jàng ko ñu teg ko ci ah. am na yoo xam ne ni moo ko doon digle ndax yu fi yàgg la ci lañ jànge charia am ci yoo xam ne nag ginnaaw bi da koo jël gën koo yombal waaye ku bañ mu a mokkal yooyu ci la ñuy tàmbalee ak yi bu noppee nag yi war a tegee yëpp ñu teg ko ci njàngu majalis am na fu mu yem wala am na fu ah, ndax xam-xam yëpp dafa am fànn yoo xam ne fànn gu nekk. Mm-hmm. ci misaal bu lu jëm ci xam-xamu fiq mm-hmm. nga xam ne mooy ni ñuy jaamoo yàlla. Mm-hmm. am na téere yu ñu teg yoo xam ne ku jàng yooyu yëpp. jàpp nañu loolu mën na caa noppi. nga mën nañu plafonné na daal. mën nañu plafonné na léegi nag gëstu. ak yaatal xam ci liir. ak di jàng jëflanteeg borom xam-xam des. waaye am na fu mën a ndax am na luñ tënk ne lii ku ko jàng. te dégg lañ ca soxla ci yow da ko mën boobaa nag xam-xam nag amu fu mu ndax day yokk di gën a yaatu waaye yow am nga ndër lay loo xam ne lu yees lu ñëwati sax danga nga xam nooy mën a jëflanteeg moom xam-xamam waxtu wu ne day day day yokk ni nga ko xamee li ñuy tudd ay nawasil dañuy jékki-jékki lu bees ñëw loo xam ne jamono bu alxuraan di wàcc wala bu nekkutoon waaye teewut ci alxuraan ak sunna la ñuy sukkandiku ba génneel koy àtte jërëjëf jërëjëf sëñ Mbacke Abdourahmane dana dee siwaat léegi ci kanam ci ci ci yow incha allah yaa ngi lay sant baax baax ci tontu yu am solo yooyu euh, si si si sëñ Massamba bu ñu nee njàngaleem majalis euh, xam nañ ni ba mu tàmbalee yàgg na daanaka mën nañ ne mook lislaam a jógandoo euh, ndax ni mu ko waxee léegi rek mooy tax ñu mën a xam xam-xam bi nga xam ne moom la jëfandikoo ngir mën a jaamu yàlla ak mën a def yeneen ak yeneen njàngu majalis moomu naka lañ ko mën a dëppalee ak jamono ak fi jamono toll waa jërëjëf sëriñ Mbacke ci ubbi bi ak laaj bu am solo boobu ak yi sëriñ Mbacke def euh, ni nga ko waxee day njàngeen wu am solo bu tedd yaa ngi koy lëkkale ak dikkug lislaam moo tax njàng ma saxaaba yi daa jàngale buñ la laajoon ndax njàngu majalis wala njàngu modernisme yi xew ci école yi la da na njàngu majalis lay gën a doon loolu nag day njàng mu am solo moo xam ne xel xalaatut moom bàyyi ko wala desal ko xanaa kay ñu ngi ko gën a mën a dëgërale ci la xalaat yi war a jóg jëm ca waaye du nu ñàkk a waaye nag comme dañuy dund ci jamono te jamono lu ñu gën a dund rek day am yeneen yu bees yoo xam ne moom ñu aajowoo moo tax majalis bii nii nga xam ne moo nekk ci Majma Cheikhul a borom boroom yi daje ngir saytu ko xool ko ba gis na kat am na ay matières yoo xam ne dañu ko jàng ca léegi aaju yi tar na loolu jëm ci moom. ndax da dund ci jamono ñu ko suñ bàkko sax ay xew-xew di xew mm-hmm. yoo xam ne boo jàngut xam-xam yi dana jafe lool nga maîtrise xam-xam booba ah. wala bu nit laajee nga mën a tontu mm-hmm. loolu moo tax ñu am yeneen xam-xam yoo xam ne dañ ko cee dugal ca majalis bu njëkk amuñ ci woon mm-hmm. lu mel ne eh, ilmu nafs lu mel ne xisaab daanaka jàng waaye solo lool. ilmu nafs mooy. mooy wàllu psychologique. Ah, ne ku yar gone. day day baax ci yow lool ak nit sax doomu sax moo koy soxla même yenn laaj yi sax nit ki bu ñëwee nga faq yi mhm. bu amee xam-xam boobu nit ki bu ñëwee rek mhm. ci comportement bi ci ngay a jàngi ba xam kii na maanaam nan nan ngay mën a tontu ab laajam moo tax ñaar danañ ñëw bokk bu buñ laaj waaye seen comportement bi ñu ñëwee rek mhm. jàng yooyu jàngeen bi nafsi bi moo lay xam kan mooy tax nga xam ne kii lii lañ koy tont kee loolu lañ koy tont comme noonu ñu koy nettalee ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma benn waaye ñëw na ne ko man kat damaa rey nit ma laaj ba xam ndax su ma tubee dañ ko nangu wala déet mu ne ko déedéet keneen ñëwaat eh, ci beneen jamono laajaat ko laaj boobu ndax su ma tubee dañ ko nangu mu ne ko waaw kon nga gis ne laaj bi benn la waaye nag almi naf su bi nekkoon ci moom donte jibil jibil la ci moom cobian la ci moom moo tax mu xam ne sentir nga kii nii ci boppam mhm. day nit ku jàjj ku tuub koo xam ne bu ne boo tuubee dañ ko nangu mhm. loolu dana ko jëriñ kee nag moom jëkkul ngir tuub waaye boo moytu sax bu ko dana jekkaat ngir rey day kon dafa bari bari ay xam-xam yoo xam ne jamono moo dem ba laaj ko mm-hmm. suñ benn suñ benn sëriñ Cheikh Mamadou Sall wilandu day wax ne mm-hmm. inna min al ulumi mastadda al watar ilayhi xatta ka anna tarkaha xatar mm-hmm. maqayis al xararati al muqtabasa wal fisiya wal moo tax ñu rek ci ay yenn matières yoo xam ne amu fi woon ñu gis ne kat aajo tar na jëm ci ñu andi ci yenn hmm. an nag nag ñu def ko nag ci anam goo xam ne gu am gu am muróona la hmm. maanaam mën nañ cee soppaxli mën nañ ne ba ba jëmmi jamono ci misaal kimia wala physique fi mu amu ci hmm. fi mu ne nii actuellement amu ci ah, mais nag ubbi nañ ubbi goo xam ne day ci day ne ba ci kanam mu am ci ndax ab ab ab ab ab ñoom sëñ Mbàkke mi boo ñëwoon di ko laaj aw aw ñam dana laaj dana aaj léeg-léeg mu xam ba ñam lan ma composé loolu nag mu xam kimia mooy tax moo a xam ba xam li ko kumpa ba xam da koy war a jox maanaam mu dagan wala ak arab mm-hmm. kon loolu benn la ci eh, yi wuute la majalis bi ak majalis yi ñu xamoon indi ay matières yu beesal yoo xam ne jamono moo ko indi mm-hmm. waaye tamit bu njëkk tamit lu ci baree bari ku xamoon suñ majalis xam ne ñu ci baree bari mm-hmm. bu du ñëpp sax daanaka wala bu bu du ñu ci ëpp ñu ëpp maanaam lañ daa jàng daawuñ ko xam wala boog dañ ko yeex a xam dañ daa wax na da ngay jàng tey dégg déwén ñu bëgg nag moom ba nga xam da ngay jàng tey léegi dégg léegi loolu nag ci ay laaj lay doon yoo xam ne sëriñ bi buñ ko tëralee buy tëral bala moo jógee jataay bi ñoom ñi fi nekk ñëpp dañ leen laaj ba xam xam nañ wala xamul mu ko a continuer kon loolu tey dañoo bëgg di jàng jàng léegi dégg léegi loolu kon lu bees la loo xam ne amu fi woon waaye tamit wutal ko ba tey lu mel ne ay examen imtixaanaat mm-hmm. nga xam ne balaa kenn jàll dañ la examen ci la jàlloon examen yu bari lay doon mhm. jataay bi dañu examen ba xam da ndax dañu dégg wala déggoo ko buñ nee ba ci kanam weer wala sans ni majalis bi gisee mhm. wala nu idaara bi idaara bi tërale mhm. dem ba càgg dañuy defaat yenn ay ixtibaar natt ba xam bu nee ba at mi jeex dañuy xool ba xam ndax da ngaa war a jàll wala wala waroo jàll façon imtixaanal yooyu noonu loolu amutoon ci majalis bu njëkkoon daa nga gis nit ku dem ba jàng àgg àgg xaliil ba àgg ci alfiya tamit boo ko làkkee ñaari jumla arab du la mën a tontu ñu fa yéene indi nag ay ay xam-xam yoo xam ne nag la koo ko manqué woon ba tax euh, du man loolu mm-hmm. nga xam ne moo tax da nga daa gis ko jàng ba sori te bu bëggee dem ci école bu moytu fu néew bu suuf lay tàmbaliwaat mm-hmm. léeg-léeg ñu tërëb ci anam goo xam ne mm-hmm. ku ci jàng boo ci génn mën ngaa dem ba am niveau licence nga xam ne lañ jàngoon ca marxal ibtidaay ba primaire ba collège ba lycée ba ba ci sax maanaam marxal jaamee ba ba ci licence loolu yow dooy soxlawaat dara ndax fekk na mu nekk ci yow ba noppi grâce à ton loi kese ngay soxla ca ma njàng ma sori mi wuti master doctorat kon fexe nañ daal ba nga xam ne mhm. euh, la majalis njëkk yee manqué woon ñu def ko ci majalis bii nii ba nga xam léegi du yëgat ak manqué koo xam ne kat ñu nekkoon ci école ba rawee nañ ko d'accord dégg naa la nga léegi maanaam lu jëm ci wàllu làkk nga xam ne koo xam ne bu njëkk daraan jàng ba yegg ci yenn martaba bi waaye boo ko làkkaloo arab du ko du ko du ko mën a laaj ñu gis ne tamit dañuy dañ daan ma daan faral dégg euh, majalis ñaare ñu naan li nga jàng maanaam dañ lay jox ab téereb arab di la ko firiloo ci wolof wala di la ko firil ci wolof la jàngal ñu ngi koy firee ci wolof euh, foofu tamit euh, ci làkk bi ndax am na ay yees yees yoo xam ne fas nañ ko ci yéene indi ci wala làkk olof moom la ñuy jëfandikoo ngir jàngal ko kii wala wala dañ koy jéem a firi ci arab pour mën a yegg ci niveau boobu nga xam ne si moom la waaw laaj bi am na solo lool Euh, firi ci làkku nit day lu am solo donte du lu ñuy yam moo tax kuy ab jàngalekat boo boo mu maarasaa joojoo jonjoo ak métier mi lu yàgg danga xam ne xale bi soog a jug sëreegul nga jàngal ko ci làkkam ci li gën a gaawe xam ci la koy gën a gaawe dégg moo tax booy xool fi ne sintiir yi nga xam ne dañ koy jàng ci e, wolof gone dañ koy gaaw xam ci loolu rek lañ soxla waaye boo na jàng ci arab day mel ay xam-xam yu bari nga koy jàngal sëñ Mbàkke mi dégg naa ko muy wax naan te saxaar fi ne boo ni ñu ko baaxoo jàngee boo ñetti matières yi bokkul nga koy jànge da nga ko jàngal wolof uh-huh. wolof yi leer naa ñu ngi ko indil yoo xam ne maanaam xamu ko woon uh-huh. nga xam day diis ci moom mu yittewoo maanaam xam naa da koy doy sëkk jàngal ko ba tey maanaam baat bi li muy firi jàngal ba tey max naa mi soog a ñëw hmm. nga xam ne kon moom itam max naa mu du ci àgg moom hmm. ndax baat yi ko wolof jafe yi nga koy yi nga koy jox moom moom moo koy doy yitte uh-huh. loolu nag ñu gis ko nag nga xam ne kon gone yi nga xam ne dañoo suufem jàng ñoom mm. di soog a soog tàmbali li gën a méngoog ñoom mm. moo ñu leen firi ci wolof waaye ci anam gu leer naa ñu nag boo mm. xam dana xaw wuuteeg anam nga jàlloon bu njëkk da dañ la firi baat boo xam ne yow mi ko fi yow gone gi mi rek waaye ku laaj lan may maanaam doo ko mën a wax mm-hmm. doo ko xam loolu nag dañ ko fas yéene moytandiku ci lii moom mm-hmm. kon danañ jàngale ci wolof mm-hmm. waaye bu demee ba sori nag boo nag day aajo tamit moo tàggat boppam nag ci làkku arab moo tax mën nañu dem ba nga xam ne mhm. kiy jàngale sax boobaa ci arab lay jàngale muy wax mhm. gone yi tamit ci la ñuy tontu mhm. waaye tàggoor bi tamit ci moo mën a bind insha ak ak li ñuy tuddee taxriir dissertation nga xam ne léegi lu mu soxlaa bind mën koo bind lu mu soxlaa dégg mën koo dégg. kon loolu mënu cee ñàkk. dëgg la ngox loolu mënu cee ñàkk lu lu lu am solo la muy ci li nga xam ne rek noonu la ñu fas yéene kon euh, doxalee euh, liggéey bi su mbokk yi naa dañuy daal di ñëw ci programme mu majalis bi nag ci biir complexe bi naka la ko fas yéene tërale ak nu koy déroulé. ak jërëjëf sëñ Modou sëñ Samba ñu solo lool. Mm-hmm. dégg nañ ci kon li fi nekkoon. Ah. lañ téye mm-hmm. waaye li mm-hmm. fi manqué woon. lu am solo la. bi ci des mu wax lu leer ci ne mhm. lu daawut am mooy di nattu nit ki mhm. ba lu mu weesu ñu xam ne weesu na xam na ko mhm. balaa jàll fekk lu weesu woon jàll xam na ko bu dee niñ ko tëralee njàng mi ñetti diggante la ñetti étape la étape bu nekk nekk ñetti at ñetti at maanaam boo seetloo daal fi tàmbalee fi mu jeexalee dana mat juróom-ñeenti at yoo xam ne ci biir boobu jàpp nañu xam-xami lislaam yëpp yëpp gën a yitteel yëpp dina ko jàng yokk ci nag yi sëñ ma sàmb doon wax hmm. yoo xam ne adduna da ko soxla hmm. ab lislaam soxla ko hmm. kuy tontu ay laaj ci diine soxla bokkutoo ni ñu baaxoo jàng da nga daan jokkoo keneen di ca gëstu ko door a mën a tontu bëgg nag jàngale euh, sëriñ bi mën a mën a boole yëpp eh, kon ñett ñetti dafa am lu ñuy tuddee marxala asasiya ak marxala mutawasita ak marxala aliya bu ci nekk ñetti at la. nga mm-hmm. xam ne tàmbali bi nii ci ñetti at njëkk yi ci lañ toll. ci la ñuy tàmbalee jël. bu defee bu ci nekk nag. Mm-hmm. xam-xam ñu fay jàng mooy xam-xam lislaam yi. Mm-hmm. ginnaaw gone yi fi ëpp. day jàpp ne ñu mokkal alxuraan lañ maa sor nañ ci alxuraan. dañ leen jàngal fiq jàngal leen xadis. jàngal leen tasawuf. dégg bu demee ba ci kanamit yi tax ñu dégg yooyu mooy usulul fiq ak xawaaxid fiqhiya ak yeneen xam-xam yooyu yëpp day dugg ci biir mhm. yokk ci nag yeneen xam-xam yi nga xam ne lu jëm ci xisaab ak lu jëm ci taarix ak mhm. joxraafiya ak siira mhm. yokk ci siiratu Cheikh al Xadim it dañ ko fi jàngale xam xale bu fi génn tey dunduk sëriñ bi li ci lañ ci war a mën a xam lépp dana ko xam euh, xam-xam yeneen yi muy soxla ngir dimbandikoo ko ngir jàllale wooteem lislaam bi dana ko jekku lépp lépp nag juróom-ñeenti at yoo xam ne bu nappee moom jàpp nañ ne aalim lay doon ndax daa bokk ci jublu ji mm. mu nekk boroom xam-xam boo xam ne day peek xam-xami sariya yi waaye ci loolu ci wetu loolu it am na yar bu mu àndal mm-hmm. ndax ni ko Cheikh Mamadou Mountakha xafisallaahu daan waxee ne daa bëgg aw jiw mm-hmm. ñu mel ne ña sëriñ bi njëkkoon a defar mm-hmm. ca woote ba ba tax bi muy tànn sax ñu bari fu nañu jël fa dara ngir bëgg ñoo daan nekk aw jiw fañ jaarale woon seeni maam ñu jéem a xentu mborom foofu loolu nag sëñ bi jàngale la woon ak yar te muy woote ne ku fi jàng rek indi woon mën ngaa dem wuti ko feneen kon jàng mu ànd ak yar la daara ji day am yar jàng mu ànd mm-hmm. yar la ci diine yar la ci dikk yu baax mm-hmm. yar la ci dund yàlla mm-hmm. loolu lépp mën naa wax sëñ bi dala ko dañ jàng xam-xam charia yi waaye danañ ko tà dañ leen ci tàggat ñu koy dund léegi ndongo bi ñu war a tànn ngir mu mën a bokk ci ñuy jàngal majalis yan critère rek ngeen xam nga fii dina am ñoo xam ne dañuy dëkk ci biir daara ji waaw xay am ñoo xam dañuy jàng di ñibbi hmm. bu dee ñuy dëkk ci daara ji moom dañuy wax ne hmm. faw day wattu alxuraanul karim faw mu wattu ba day mokkal alxuraan waaw mooy bi ji ciitu te hmm. du weesu fukki at ñeent te du weesu fukki at ak ñeent programme bi ko tëree lii tax mën koo matal mooy ko toll foofu bi ci desit bu dikkee dana am test bu koy rombale seet ba xam ban classe la war a dugg ndax am na ñoo xam buy ñëw jànguñ dara ñoom mën nañu tàmbali ci at mu njëkk bi ñoo xam ne jot nañu jàng aslëf ci daara fañ doon jàngi alxuraan buñ xoolee lañ jot a jàng ci la ñuy sukkandiku xam ba xam ban classe la ñuy bu dee ki nga xam ne day jàng nañu bi moom mm-hmm. na miin alxuraan waaye mën naa bañ a mokk mm-hmm. addi it mën na ëpp ko ak ñeent moom itam mm-hmm. waaye ki fi dëkk moom nga xam ne dañoo jàpp ne jiw wi sëñ bi bëgg la ñuy tàmbalee moom na wattu alxuraan te bu weesu fukki at ak ñeent te it na jàll ci ixtibaar bi ñu koy defal mm-hmm. ngir mën a mën a mën ci daara ji. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf suñu Mbàkke Abdourahmane ñu ngi bu baax a baax nga xam naa waxtu yi ñu ngi ñu ngi def ndax dañu amoon ci waxtu daanaka suñu bàyyitul euh, damay ñëwaat rek tuuti ci si si si ci maanaam critères yi nga xam ne si ci lañu fas ñu fas yéene euh, sukkandiku nag ngir tëral njàng mi mu doon loo xam ne si da ci da ci da ci da ci reposer maanaam ci lay tege. Euh, te doon it loo xam ne lu dëgër lay doon ba pare it mën a yàgg lool ndax li tax ma laaj loolu mooy ci euh, dañu gis ne jamono dafay dox doon nga ko tudd léegi euh, ñu gis ne làkk yi sax da ngay gis léeg-léeg bu dee ci làkku francais dama xamul arab bi mais francais dañuy dem ba yàgg ñu ne muu sàngam baat sàngam baat bu archaïque la léegi lii kenn jëfandikootu ko nangam la ñuy wax léegi loolu xëy na dama ci ñëwal ndax am na ci arabe wala déet et puis tamit ñu gis ne informatique dafa am solo lool ci jamono ji ñu toll Euh, ndax njàng mi aussi am na ay xalaat yoo xam ne yéen a ko ci dugal ci wàllu informatisé ko ba nga xam ne dana gën a gaaw a dugg ci bopp xale yi ndax xale yi tey koo gis mi ngi ak téléphone portable wala mi ngi ak dana gën a gaaw a dugg ci bopp xale yi tey danañ ko gën a mën a gaaw a adapté ndax yooyu tamit yéen a ngi ciy xalaat wala am na ay projet yoo xam ne ngeen ko cëndee. Euh, waaw sëñ Modou. laaj boobu am na solo lool. xaw nañ koo toon sax daanaka ci li jàlloon. ndax bañ waxee dañ koy rek. ci la loolu ngay wax dugg mm-hmm. maanaam da idaara bi yor majalis dafa jekk ngir lépp loo xam ne lu jamono indi la cam am njariñ mm-hmm. buñ ko jëfandikoo mu jariñ rek jekk lañ ngir jëfandikoo mm-hmm. moo tax yooyu ngay wax ma wàllu technologie euh, dañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ak ak ak euh, lu ne demee kon euh, bañ maanaam majalis am na bu buñ ko miine woon mhm. maanaam dafa dafa xawoon a euh, donga daara daal bu ñu ko mën a waxee noonu mhm. waaye nag sikk amut ci ne xam-xam dëgg xam-xam moom mhm. ma nga ci woon tubaa sax nag wax dëgg yàlla loolu mooy mooy misaam loolu ci la ràññi ko borom xam yi ngay wax yi ngay dégg yépp foo leen ni amut fenn foo leen mën a maanaam classe fu dul maanaam ci ay médialisien lañ bokkoon waaw ah waaye te jamono dem dox na ba nga xam ne léegi buñ ci yemee rek nañ ko daal jànge bu njëkkoon te boolewuñ ci maanaam jumtukaay yu bees yi ak xam-xam yu bees yi da ngay xaw a tar da nga dund jamono ba mel ni kuy dund jamono ba jàlloo ah, loolu moo tax nag ñu dabaatal yooyu bàyyi xel yooyu ba nga xam ne maanaam daal ki nga xam ne ci école bi kese la jànge jàngu ci majalis ba ak programme bu ñu mën a yor loolu man la ci am njariñ lañ jàpp ne am na njariñ dañ koy ñëw indi ko dugal ko fi hmm. ci la mel ne sëñ Muntaxa moom ci boppam ah. bàyyi na xel loolu da xool booy xool discours ba day wax ne daa bëgg ñu génne nit ñoo xam ne kat jànka yi nday jàng ca Iraq mhm. ay xum mhm. ay ay ay kuufa mhm. dëkk yooyu la tuddoon dëkk yooyu njàng majalis mi la ñoroon njàng majalis la ñoroon waaye nag jamono dem na ba nga xam nag léegi fa nag maanaam nag yi jamono indi cam am njëriñ ñu jëfandikoo ko waaw kon loolu bàyyi nañ ko xel ba baax a baax a baax incha allah ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def amiin amiin amiin wàll gi sañ Mbàkke junñu na xam naa waxtu jeexan sax waaye wàllu googu tamit wàllu gu am solo la maanaam wàllu tarbiye bi mm-hmm. xam nga jàngalee gi kes day mel ne bu njëkk dañ daa wax naan ku jàng jub xëy na jamonoom nangoon na loolu mm-hmm. waaye dañu ne ba jamono ba léegi day mel ne jànkat yu bëree bëri léegi day mel ne façon ndëng yi am ci ñoom wala sax yenn jikko yu suufee yi léegi tasaaroo na léegi loolu mm-hmm. loolu nag bàyyi nañ ko xel ba nga xam ne mhm. dañuy bëgg gone ak bànn bu ñu koy jàng ni koy jàng lañ koy yaraale mhm. ba nga xam ne man man insaan rabbaani dañ bëgg génn ma insaan rabbaani kaamil dañ bëgg génn nit koo xam nitu yàlla lay doon nit koo xam day mel ne que murit mbàkk kajoor na meloon jàngal ko bam ne ar mhm. yar ko bam ne nër waaye tamit yee ko bam ne jar kon ñetti baat sañ fàll yooyu ci tënk mooy ahdaaf yi nga xam ne moom moom la mooy mooy jubluwaayu majalis bi mu bëgg génn nit ku mel kon ma doon daal di jeexal rek eh, santaat bu baax a baax suñu Mbàkke Abdourahmane xam naa nag yaa yaa ngi ma doon jubbanti léegi eh, ci bi ma ne université bi ne baatu ko war a bàyyi ndax sama classe bi ñu bëree bëri université rek la ñu eh, waaye nee nga mu jàmmaal mooy complexe leeralaatul ñu rek lu tax du université mais complexe waaw université dafa sëñ mu dafa ne ci biir ah. day leen lenn ci biir daara ji hmm. waaye ci dàngum alxaan la tàmbalee ah. daa alxaan ji mag fi ab li mu mag a mag na fi loo hmm. xam ne li ñu doon ci majalis bi ci ah. dëppale ko jamono ah. moom it ma nga ca ah. xëy na kilifa du ñàkk danañ ci waxtaan mhm. daaray majaalis yi nekk fi di njàngum xam-xamu diine mu ànd ak yarub diine mhm. am nag faculté buy jàngale lislaam mhm. ak di jàngale làkku arab amaat yeneen faculté yu jàng médecine am jàngale métier yi ak yu demee noonu yëpp am jàng lu jëm ci wàllu xam-xam mbay yëpp ngay boole moo rek mu jàmmaxu si Ahmadou oh, Khadim oh. kon ëpp na ab université. <laughs> waaw loolu moo tax may la. Uh-huh. complexe la. dëgg la université ngi ci biir. Uh-huh. waaye leneen a ngi ci biir. dëgg la ci lu wér. ndax université daan dund ba am ñaar fukki at ak nangam door caa mën a dugg. waaye tey juróom benni at ci la ñuy ci biir <laughs> mu ngoog kon ñu ngi santaat bu baax a baax suñu Mbàkke Abdourahmane doon suñu gan tey ànd it ak suñu Massamba Bousso ñu koy sant moom bu baax a baax euh, ñi nga xam ne it ñoo doon jàpp ci liggéey bi ba ngeen mën ñoo gis man ñoo dégg te suñu Cheikh na euh, suñu Cheikh na Fall nekk ci bopp bi Euh, ànd ak euh, sëñ Bachirou Diagne ak sëñ Jaafar Sadikh ak euh, sëñ ah, sëñ Abdou Lahad waaw sëñ Abdou Lahad Ndiaye moom tamit ñu koy koy sant di bu baax a baax a baax ak mboolem ñi nga xam ne rek ñoo ñi doon seetaan ak ñu doon déglu leen jaajëfal di leen jox dég daje ci yeneeni jataay wasalaamaaleykum wa rahmatullah wajalu daaban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wattafahumi wajalu daaban maskana taallumi wa mawdi'al fikrati wat tafahumi